salaamaaleykum ami internet yu Pikine Info maa ngi leen di nuyu di leen ziar man Sista Thiar ma amaat contentement di jàkkaarloo ak yéen ci sit bi nga xam ni yéen a ko taamu bëggal ko seen bopp may am mbégte tamit di leen présenté seen émission bi di bës du net. dañu koy dooree nag ci coow li nga xam ni topp na kii soxna Aïda Diallo bu Cheikh Béthio ak benn jëwriñam boo xam ne rek ñu ngi koy toppee mbirum sàcc nag sàccub koppar goo xam ni mi ngi toll ci huit millions quatre cent nag mbir mi mi ngi xew ci veyu cant yi nga xam ni ñoom at bu jot dañu koy amal mu muy 17 avril ñuy màggal daje bi nga xam ni moom la Cheikh Béthio Thioune daje woon ak kii di Serigne Saliou Mbacké bi ñu jubee loolu nag ci la ji nga xamante ni bi moom la ñuy jiiñ mbir mi ca fa muy liggéeyee rek ñu gis ni koppar bu takku jóge na fa ci noonee nag ba ñu ubbee enquête bi rek la ñu daal di nag jël baaraamu tuuma bi rek daal di ko koy joxoñ nag mbir mi ñi nga xam ni ñoom ñooy gendarmerie bu njaareem nag ñoom ñoo yore enquête bi ñu ngi woyal enquête bi nag ba fii ñuy wax ak yéen nag xanaa rek ñu toog rek di seetaan ba xam mbir mi fan lay mujjee bu ñu jógee ci loolu dañuy dem euh, ci coow yi nga xam ni topp na maison de production bi di Marodi TV gannaaw bi nga xamee ni kii di Souleymane Seye Ndiaye ak Amélie mbay jóge nañu fa ñu bokkoon ci euh, série Golden euh, jamono ji seen coow mi ngi doxee ci diggante ki nga xam ni moom moo di Halima Gadji ñu gën ko xam ci turu Marème Dial mu nekkoon actrice principal bu série maîtresse d'un homme a ginnaaw ba saison 2 bi jeexee nag ñuy xaar saison 3 bi mu indi surprise bu rëy ndax kii di Marème Dial nekku ci waral nag ñenn ñu ngi naan coowalu xaalis la waaye kii di Mass Ndour moom na génn na indi ci ay leeral mi ngi xam le ni rek xaalis taxul ñoom ñu tàkkaliko ak kii di Marème Dial ndax Marème sax moom ca njëlbeen xaalis ñongalu ko woon ñu ngi ko doon jox rek li nga xam ni moom mooy cent mille lañ ko doon jox ci 8 mois de tournage Mame Mbaye dafa daal yow porter plainte kii di Abdou Karim gay ñu gën ko xam ci turu Karim Xurum Xàq limu mu koy toppee nag bokk na rek ci ay tuuma yoo xamante bi moom Karim Xurum Xàq nag nee na moo ko ko tuumaal di wax ni que rek kii di Mame Mbaye Niang dafa bëggoon ànd ak kii di Ousmane Sonko ci manifestation yi nga xam ni jotoon na fay xew ba tax sax moom Mame Mbaye mu doon wut numéro Ousmane Sonko ngir woo ko téléphone ali waral nak Karim Xurum Xàq génn moom it def révélation yooyu rek bokk na ci sortie yi nga xam jamono ji gis nañu Mame Mbaye di ko génn nag di ci wax ki nga xam ni rek moom moo di euh, Ousmane Sonko euh, baat yu ñaaw yu nekk teg na ko ko bokk na ci sax di ka di xamle ni rek euh, moom yi ñu koy toppee jamono ji ci digganteem ak Adji Sarr nekkul rek loo xam ni njëlbeen la ndaxte jotoon na fi sekk ak benn xale bu jigéen ba xale bu jigéen ba wanoon ci lor mu daal di koy rawale génnee ko réew mi yóbbu ko fële ca Maroc ngir ñu yàq biir bi ak keneen koo xam ni am nañu doom ñoom ñaar doom ji nag mi ngi fii ci réew mi loolee la Mame Mbaye wax ba tax Karim Xurum Xàq génn rek daal di koy tekk tuuma yooyu waaye ñu ngi xam leen ni rek ba tey kii di Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci turu Karim Xurum xaq ñu ngi koy war ngir jox ko li nga xam ni moom moo di plainte bi waaye ba tey jii rek tegaguñu ko bët. buñ ci jógee dañuy dem euh, ci ki nga xamante ni bi moom moo di Wally Balago Seck 27 avril saa yu daan ñëw événement lay doon ci réew mi waaye bu ren bi nag wute naag yowoon yi fi daan jaar nag li ko waral nag bokk na ci génn ko àdduna way juróom bu góor bébé di Thione Balago Seck nga xam ni bi mu matalee 40 jours sax yàggul anniversaire Wally sekk di niki tey vingt 27 avril moom nag féetewu ko na mu ko daan feetee ndaxte dafa nekk ba tey ci ab dëj moom Wally Seck rek ñu ngi xam le ni anniversaire renam bi ni mu ko feetee bokk na ci rek feet boo xam ni bu simple la ci biir këram moom ak ay famille am mbokkam xaritam ak ay am di jàmmam xibaar yi tukkee bitim réew nag ci mbirum Mame Dikone Samb la ñuy waxtaanee di ab sénégalaise boo xam ni moom moo fa ñàkk bakkanam Mame Dikone Samb nag li ko li ko indi rek bokk na ci ba mu jógee rek doon dem ci ab banque di fa retirer xaalis nag ci noonu la ko banquier bi xamal ne rek li ci chèque bi amu fa mënuñu ko loole doon loo xamante ni nangu ko woon dégg nag ba daal di fay indi ab coow doon jàppante ka nga xam ni moo ne woon ca banque ba ci noonu nag la gendarme yi daal di dugg nag ci saa si ñu jël seen seen matraque ya daal di ko koy maas ba mu sonn daal di koy gàddu rek jagat jagat rek moom ca gendarmerie ba nag ba ñu fa yeggee yàggul dara moom maam di Dikon sàmb ci la piqué crise daal di ñàkk bakkanam ci li ñu ma xamle daal moo que ni dañoo faat bakkanam ndax dañu ko ñoŋ ñoŋal daal di koy malmené ba mu ñàkk bakkanam fële ca Italie tàggat yaram la ñu jëm nag di xamle ni rek kii di euh, Cheikh Sarr moom mi nga xam ni moo nekkoon euh, sélectionneur euh, bu Lion yu basket yi fii ci Sénégal ci mondial 2014 bi nag gannaaw loolu sax moom Cheikh Sarr ñu ngi xamle ni rek dañu ko dàkkoon ci équipe nationale lu basket yi ci loolee la ñuy xamle ñun li ñuy xamle rek moo di nekk moom Cheikh Sarr jamono ji moom mooy coach bu bees bu Rwanda góor ak jigéen yu fay def basket moom moo leen di coacher moom moo yor daal maanaam ci gàttal équipe yu Rwanda yi jamono ji moom Cheikh Sarr moom moo leen yore ba tey dañuy desandeeg yéen nag ci tàggat yaram di xam le ni rek combat kii nga xam ni moom moo di Modou ak Ama Balde du yàgg dara rek ñu daal di sëgg gannaaw pression yi nga xamante ni bii rek ñii di waa Pikine ak waa parcelle tegoon nañu ko ci promoteur bi di Luc Nicolaï Jules Balde moom moo njëkk génn rek di xam le que ni combat bi bu ñu ko bëriwul ci 2021 bi nag Ama dootu ko bëri te bu boobaa moom promoteur bi moom moo ciy jëlee ab pertement ndax ñoom avance bi ñu jotoon a jël du ko delloo tamit daal di génn rek ñoom it di xam le ni que combat bi ci at bi rek la ñu ko mën a bëree lu ko mooy seen mbër dinañ ko jëlal beneen contrat te bu boobaa dina ko bëri rek daal di bàyyi combat bi ci noonu nag ni ki démb la kii di Max Mbargane daal di def benn sortie di xam le ni rek Luc Nicolaï ak waa Estefam ñoom ñu ngi gisee di waxtaan rek ngir xam ban date la ñuy jàpp rek ngir ñaari mbër yooyu mën a bëre li ñu xamle daal moo di nekk rek ci 2021 bi li lëndëm ci boppu sénégalais yi Ama Balde Balla wala Modou kan moo mën sa morom dina leer ci lu yàggul dara xanaa keñe dañuy toog seetaan rek ba xam fu wànneen di mujjee ak i gëtëm mbokk internet yi lii lañ leen indiloon tey eh, ci seen émission les buzz du net man Sista Thiat ma ci doon am contentement di leen ko présenter di leen fàttali nag ngeen abonné tey bés cloche de notification bi ngir benn information bañ leen a raw waaye nag laata maa dem dinaa leen fàttali que ni restez connecté sur Pikine Info ngax lu bëree bëree ngi ñëw ay surprise yoo xamante ni bii fileeg ñuy war yi di ngeen ko gis incha allah ciao ciao